mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ci biir MTV Sénégal ñoo ngi wax fas yéene waxtaan ak yéen ci wàllu xew-xew bi nga xam ne moo am ci biir réew bi mbokk mi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax Fallou Diop laa tudd. Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la laaj euh, dégg nga loolu xew si dëkk bi mooy euh, euh, policier bi nga xam ne moom moo teg loraange ki nga xam ne mooy jeune boobu dëkk biir caaro yi lan moo ciy sa xalaat. waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare nuyu seen mbokki téléspectateurs yi euh, maa ngi leen di sant ci interview bu baax a baax waaw loolu nag dafa nekk loo xamante ni yàgg nañ koo gis Sénégal te kenn jëlu ci benn sanction chaque jour nga dégg euh, violation am na ci boo xamante ni ci police lay jóge wala gendarme lay jóge dal ci kaw population bi te dama yaakaar ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yor suñuy kaaraange ñoom buñ demee ba violation di jóge ci ñoom di ñëw ci suñu kaw ñun alors que suñu kaaraange nekkatul ci dara xamul nekkatuñ ci lu ñu xam Euh, état liy dooleem mooy ay forces de l'ordre yi nga xamante ni ñoom ñoo war a yoro sécurité population bi loolu mooy doole état mais bu ñu demee ba population bi ñeme di song euh, force de l'ordre yi ak gendarme mu ak police yi ngir di dal seen kaw wala di xeex seen kaw alors que ñun suñu réew jéggi na dayo boo xoolee ay 96 euh, jàpp 80 ba 92 ba 96 mosoo woon a ñeme dégg police ñëw na rek. wala nga séen ko sax di am leen looy xadal looy def parce que boobu amoon na loo xamante ni doxoon na suñu diggante ñoom donte du ragal warul am mais respect moo war am suñu diggante ñoom te respect bi ñoom a jógee ñëw ci ñun parce que ñoom ñoo yore doole ji ñoo yore force ñoom a mën a sensibiliser nit ñi ba nit ñi xam fan la ñuy teg seen tànk waaye bu dee danga ngaa jàpp nit yow li ñu koy jàpp yow dara wóoragu la ndax police wala gendarme moom day mën a enquête am rek jébal procureur ak lu mu mën di doon lu mu mën di doon loolu rek lay def warul dóor dóor moom bokkul ci lenn amul ci benn loi ba ciy gaañ nit su demee ba policier wala gendarme di génne direct population am loolu moom laa doy na waar torop torop torop war nañ ko seetaat te sanction yi ñu ci war a jël war nañ ko cee jël bu yàgg parce que bari na fi loo xamante ni gis nga fi ñu ne policier faat na nangam dañ koy toog deux ans trois ans nga dégg mu niil doo xam ci lu mu nekk ñun daal li ñu mën a xamal mooy ñun suñu droit ñun population bi moo riir xamatuñ ci loxo yi ku mu nekk fi mu toll nii voilà. léegi yaakaaroo ni xale yi tamit ñoom. des fois dañuy jéggi yoon ndaxte dañuy teg couvre-feu nga gis xew-xew yi nga xam ne moom la ci jeunesse bi di def est-ce que loolu aussi andiwul tey li nga xam ne moo xew nii. mais waa dëgg la loolu am na mais couvre-feu loi la mais loi bu ne am na am sa lu ñu ko tegal loo xam ne mooy ay sanctions soit dañ lay euh, dañ dañ lay amende wala ñu yóbbu la en prison deux mois ba nanga bi at loolu bu ñu ko defee ñoom jàpp nit yóbbu ko entendre ko jébbal ko procureur moo leen gën a yomb ko ñuy dóor nit. parce que bu ñu nee loi couvre-feu am na mais loi bi am na yenn yoo xamante moom la teg tey bu nañ ne bu ko kii jalgatee lii moo ko war a dal daan yi lañ ko war a teg mais du dóor wala kon ñoom ñoo jag ñoo jalgati ñoo njëkk a jeggi loi parce que loi boo ko dekkee boo ci nekkee da ngay xam ne ci loi nga nekk yow mi nga xam ne yaay sàmm loi bi da ngay nit ki exemple boo xamante ni bu ëllëgee dootu ko defati mais tey soo jàppee nit dóor ko wala nga gaañ ko bu ëllëgee ay mbokkam mer wala ñeneen dëkkandoo mer wala lu ñu def song song song song nit ñi wala ñu song ñeneen rek loolu donc lay indi ay violation lay jur rek mais benn sens mais boo jàppee nit ko ci yoon ko ne ko li nga def da ngaa jéggi yoon te yoon lii la la teg boo ëllëgee keneen ku koy gis noonu dana xam ne lii la ko teg te te dara du xew. dañu gis ne police bi dafa am problème fan yi yaakaar naa ni loolu yàggul sax bi mu xewee donc euh, policier bi dafa am jafe-jafe ak benn citoyen benn jeune bu dëkk Caaroy ba ñoom ñaar ñuy xëccoo. ba policier bi gaañ ki nga xam ne mooy jeune boobu noonu est que loolu jaadu na sunu ñi nga xam ne ñoo ñu war a sàmm tey ñoom ñu ñuy lool. man ci sama xalaat policier il est doté de tous les pouvoirs répressifs bu ñu ko joxoon jaasi sax pour mu maanaam pour mu def descendre sur le lieu warul dóore warul faire du mal à qui que ce soit moom yoon moom la àndal moom mooy yoon na jàpp xale bi yóbbu ko commissariat moo gën. mais waru ko mais warloon jàppante ak moom bu koy gaañ loolu sama xalaat man. dégg nañ tamit ñu ne policier bi du policier maanaam ay copte yi nga xam ne ñoo nekk ci biir police bi parce que ñu naan policier leen ñii naan du policier lan nga ci xalaat ci loolu. man ci sama xalaat euh, police bu ñuy def seen liggéey dafa war a professionnel police bu ñuy def seen liggéey dafa war a dafa war a ànd ak xarañte bu mat sëkk. ba tax na nit ñi waruñu am dut naan ay kii policier la am du policier mais li mu war bu wóor mooy man j'ai confiance à la police sénégalaise wóolu naa leen ndax ci seen liggéey quoi kon donc nii seen xalaat la wax rek mais policier waru waru dem ba yor gannaay sax di jéem a titilaate wala di jéem a gaañaate képp ku tegul ci yoon ñu teg la ci yoon de façon pure et simple sans pour autant que ñu repressé la ba ci xam nga ba ba lee ba lee gaañ loolu sama xalaat lan ngay wax jeunesse bi nga xam ne dañuy violer loi bi c'est-à-dire xale yi nga xam ne dañuy génn ci plein couvre-feu génn taal ay pono ba tey lii xew nii yaakaar naa ni moo indi lii lan nga ci mën a wax ñoo ñooñu reewandu lañu nekkee ndaxte buñ ne couvre-feu ça concerne tout le monde quel que soit boson yi ngay mënti am lijjante ko ci journée bi bien avant vingt et une heures c'est simple vingt une heures bu jotee nga dugg sa kër tëdd nga yeewu si jàmm moo gën